réew mi ak ni mu bindoo ak jafe-jafe yi nga xamante ne toll na foo xamante ne ku amul bralon daanaka doo ci seddu ma ne duma bàyyi danaa dem dugg ci secteur ñaw ndax sama famille ñu ci bari ay couturier ci laa dugg ci wàllu ñaw ba yàlla dogal sama tur àgg fu mu àgg muy Daaru Salaam Couture ku ne xam ko ci partout à travers le monde ma ne nag boo nekkee ndaw nekk ci réew da nga war a fexe ba bokk ci ñi nga xamante ne dañuy defal réew mi waaye doo taxaw di xaar réew mi defal la ma gis ne dañoo mel ni ndaw ñi dañ leen a interdit politique parce que li tax dañ ko diaboliser ngir li lan xam nañ ne ndaw moom la suñu boroom am lu mu def ci moom ngir xalaat waaye ngir mu am jotu jàng waaye ngir mu am gotu créer ñooñu noonu nag tey jii nga xamante ne tey ñoo waroon a jiitu tey ci langue politique bi ngir lan politique du daral lu dul débat des idées politique du dara lu dul xam-xam politique du dara lu dul ku ci nekk nga diisoo wax sa xalaat ñu xool la ca ëpp solo population bi jugé leen loolu mooy politique koo gis muy politique di wax lu ñaaw wala muy wax lu safaanoo dafa amul xam-xam ndax politique ci débat des idées la fondé moo tax ma ne pourquoi pas ndax nit boo nekkee ndaw nekk ci réew dugg ci secteur yu bari war nga mën a taxaw defal dara sa réew te nag loolu pour mu mën a nekk dangay toog sa saal baa nga toog sa buntu kër di wax dangay xeex ba dem fa nga xamante ne fa la defee di fa dindee te foofu pour nga mën faa àgg foog nga politique ndax kat politique mooy tax nga yóbbu sa baat yóbbul baat ku amul baat loolu moo waral ma taxawal mouvement bi tuddee ko alliance des forces républicain ndam li mu nekk suñu couleur di vert ak jaune ma daal di ne jeunesse bi presque mooy vert mooy yaakaar mooy espérance ma jël jaune bi muy richesse ma ne la jeunesse c'est la richesse d'un pays ma def ko muy couleur bi ma daal di jël logo bi def ko couronne ma ne pour réew jëm fenn foog ndaw ñi taxaw wane seen bopp ndax lu nit di def ndaw moo ko ci jàppale ba mu am ndam ma ne ndaw ñi kat ñoo mérité couronne ma def ko muy suñu logo te loolu yëpp xalaatu ndaw yi la xalaatu ñi ma àndal la te ñëpp ay xale lañ ma ne naa taxawal mouvement bi pour sensibiliser jeunes pour sensibiliser jigéen ñi mais pour sensibiliser acteurs de développement yëpp ndax secteur bi ma nekk muy tailleur ku ne gis na ne fan yi ñu jóge ñu ngi am ay jafe-jafe syndicat yi jug wax association yi jug wax mouvement yi jug wax kon su ma ñëwee ba taxawal lu mel nii tey muy lancement ma nekk vice président de la l'ARESMAT di association des maîtres tailleurs du Sénégal taxawal GIE muy mission future su ma toogee tey defal mouvement ne jeunesse bee ko tax a jóg te waxuma ci secteur boobu nit ñi war nañ ma ko laaj moo tax ma ne tey dinaa profité ci lancement bi wax président de la république ak ndawam ñi nga xamante ne ñoo ko fi teewal maa ngi nuyuwaale Euh, Gora Aaj mi nga xamante ne moo fi teewal syndicat couturier bi Sénégal yëpp maa ngi koy yàdd maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi juum ci tur wi di di wàdd maa ngi koy sant di ko gërëm di ko remercier aussi ci teewaayam ñu gis ne fan yi yëpp dañoo nekk ci jafe-jafe ñun secteur bi nga xamante ne ci liy yëngu muy secteur textile fan yi paase rek ku ci nekk gis nga groupe whatsapp yi internet yi ku nekk mu ngi taxaw di wax ngir lan ñi nga xamante ne tey ñoo ñu jiite di suñu ay njiitu réew dama jàpp ne lépp lu ñuy def pour développement réew mi moo tax kon bu ñu génnee ci dëkk bi dem beneen dëkk gis fa lu am solo war koo indi ci réew mii dama jàpp ne war nañoo diisoo acteur yooyu ndax kat tey bañuñu usine textile jam-jaan waaye xam nga la ñuy bañ doxalin bi ndax usine boo xamante ne mi ngi war a jël plus de deux mille cinq cent à trois mille jeunes war leen a embaucher te usine bi yàlla dogal suñu mbokk chinois yi ñoo ko def ndax dama jàpp ne ku am vision sax taxaw di ŋàññi chinois peut-être yow bëggoo développement ndax ku ne xam ne Sénégal pays sous-développé la kon bañu ñu ku ñu dimbali ndax amuñu xaalis bu ñu taxawalee loolu ndax ay milliards la. kon bu ñu demee tamit ba ñooñu financé lu mel noonu di ko indi ci réew mi dañoo war a impliquer loolu acteurs yi nga xamante ne ci li ñuy yëngu ndax ku ne gis na ne jamono ji kër goo dugg machine mi ngi fa nit ñi dañoo am problème tey boo dem place bu dee 10 machine a ngi fa ñaar ñi ñooy daw te loolu jafe-jafe la ñu gis aussi chinois yi garniture yi ñuy dugal ci dëkk bi mu indil ñu jafe-jafe buñ ca ëlbatikoo tegal ñu société boo xamante ne mën naa produire des milliers di def veste di def chemise di def lacoste di def pantalon super 100 bàyyeetuñ sa yematuñ sax si loolu mais dañuy def taille ah ñun kat ñoo yeey fipp ñoo yeey wax pour nit ñi déglu ñu état nag bu dee dimbali dafa war a wàcc si base bi wax ak ñi nga xamante ne ñoo xam loola ndax kat boo bëggee dimbali uude yi dem ci mécaniciens yi naan leen dem leen yéen laa yebal saafara du fa am boo dee dimbali tëyee yi da ngay ñëw ci base bi boo dee dimbali tailleur yi da ngay xool association yi da ngay xool mouvement yi da ngay dem lëkkaloog syndicat yi ndax ñooy ñoo ñooñu wax la lan mooy suñu problème waaye kat doo def li ngay def ba pare doo ko def concertation kon loolu forcing la xam naa ne nag dana am ndax machine yaa nga port te su euh, tabax bi daanaka pare na waaye dañuy interpréter président de la république mu xam ne ñun ay ndaw réew mi lañu ba bu beneen yoonatee lu mel nii bu amee. mu woo ci ñi nga xamante ne ñooy acteurs concernés yi ndax ku ne xam na ne chinois doxalinam journalier lay def te kat ndaw boo ko bëggee dimbali bu société taxawee da nga war a fexe ñu am ay yi wutal leen ay couverture maladie ndax Sénégal dëkk la boo xamante ne ku feebar boo amul moyen daanaka faatu ngay def loolu yëpp boo dee defar réew da nga ko war a taxawal woo ci acteurs yi waxtaan ceeg ñoom loolu mooy développement loolu moom mooy bonne gouvernance loolu nag ñun la njëkkee ndax ñun kat di tailleur yi ku xam civilisation xam doxalin xam dimbali xam solidarité ci tailleur la fekk baax ndax kat nit ñi li ko li ko utaleeg doomu aadama yi mooy kat mbubb yi ngay sol tey ku defoon yaramu neen génn si biti ñu jaawale la ak ki la jox yére boobu nag yaakaar naa ne dara gënu koo noobu kon dama bëgg ñu gën a valoriser artisanat jafe-jafe yi ci nekk yépp ñu xool ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci secteur woowu ñu boole leen ci waaw mouvement ndam li nag euh, ci laay tëjee dañ ko taxawal ngir jeunesse bépp dañ ko taxawal ngir jeunesse bi xam ne du rek nit ki da nga war a toog ci ginnaaw kilifa yi di tàtt du rek da war a taw ñu lay jox ay 5000 francs ak ay t-shirt ngay feesal kaar yi ku ko ciy def yaa ngi lor sa bopp loraale sa askan ndax kat mënuñu boo toogee foo tunde ñu ne dëkk bi daa métti te yow yaa ko métti ndax boo jàppalee nit ki ba mu falu mu tëj ay buntam doo too am ci moom accès ñaareel ba duñ la boole ci dara ki nga kiy toog di def politique bu demee ba yàlla dogal ko mu am lu mu am mu bàyyi la fa ndax la da ngay gis jeune bu nekk sa koñ di yëngu di xeex pour gox bi doo ko jàppale bu nit ñëwee tuxu subaak léegi ci dëkk bi yor ay milliards di la ko xëpp nga jàppale ko te gëmoo ko sax loolu moo tax del réew loolu moo tax mënuñu dem fenn li ñu nekkee ñun ñoo ko teg suñu bopp politique bonul mais nit ñi la seen jikko yi changé may tàllal jeunesse bépp pour ne leen nañu taxawal ay mouvement yu mel nii nañu taxawal ay association nañu allié ci syndicat yi ngir kat bu ñu waxee ñu xam ne ñoom ci réew mi la bokk loolu laa ne naa ko lancé appel jeunesse bi ndax ki nga xamante ne mooy ñaareelu président de la république du Sénégal di président Abdou Diouf yàlla dogal na wan na jeunesse bi vision bi ñu war a am ndax koo xamante ne à vingt cinq ans nga nekk gouverneur te ku ne xam na ne responsabilité yi ci gouverneur yombul mu nekk ko à vingt cinq ans trente cinq ans mu nekk chef de l'état gouvernement bi yëpp mu yilif leen chef du gouvernement à trente cinq ans mooy sunu âge ñun ñi tey te ñun ñi tey koo ci joxoon portefeuille mu am jafe-jafe parce que lan jeunesse bi ñoo amatul ambition jeunesse bi dañ leen a dama bëgg jeunesse boobu nag ubbiwaat seen i bët te xam ne lu nekk mën naa nekk.